حلو لي يركن لي أبواب بصلاتي توسع وإذا تغني كل معين ngir nga bokk ci ñi njëkk jot suñuy vidéo saa ne aboneel ci Touba Allemagne TV HD te fàtte bés cloche de notification bi. لأبواب سلاتيني له الجوائز تخني كل مائيني rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi wa ansiraar xarxa wa rasaaya wa jinn wa seytaane wa balaa maa balaa yi wa maa amraadi wa biiri daataan xaajulil ahraadi barki maam Cheikh Ibrahima Fall mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax te di leen siyaar di jiital ci nuyoo beeg siyaar yi ki nga xam ne moo fi toog jotaayub Serigne Touba muy Serigne Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko lool te wéral ko waaye di siyaar baax tey ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo fi toog jotaayub maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba naal yi yéenee liggéeyal ko Serigne Touba mu mottali ko ànd ko mboolem taalibe yi waaye tamit di nuyu baax tey siyaar suñu buntu ci maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne mu Moustapha Ndaw di xalifa Baye Cheikh Ndaw di ñaan suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko di siyaar mboolem ñi ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew ci talaata ji nga xam ne moom lañ jagaleel maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen di ko ànd ak seen mbokkum taalibe ci heure bu jot ci waxtu wi 21 vingt heures jàpp vingt et ngeen di ko ànd ak seen mbokkum taalibe Ablaye Ndao xam nag talaata ji tey dañ ko dañoo fas yéene àndaat ak yéen ngir waxtaane maam Cheikh Ibra Fall kan mooy maam Cheikh Ibra Fall ak ay jaar-jaaram ak njariñ li nga xamante ni moom la maam Cheikh Ibra Fall àndal ak li nga xamante ni wane na ko ci sëriñ bi ba tey ñëpp tey jii ñëpp njariñu ci sëriñ bi xam naa ne dafa tey dañoo am ku gan ku am gan da ngay teraani tey ñu am gan goo xamante ne yaakaar naa ne miin ngeen ko bu baax a baax ci yitteem ak doxam jëm ko jëmale ko ci sëriñ bi nga xamante bis bu nekk mi nga waxtaane baaxuk sëriñ bi waaye tey ji nag ñu indi ko fii nag ngir mu fas yéene ki nga xamante ni mooy baabul muridin mi nga xam ne nee na woon aw may téere sëñ bamba ami mag ñoo xam ne ñu wax dëgg la te mag ñi dinañ fi tey moom lañ dalal sëñ maam Balla Mbay ñu fas yéene ko ànd ak moom jotaay bi waaye bàyyi ko mu nuyoo mbokk yi seetaan su ko defee ñu doog a tàbbi ci waxtaan wi waxtaane ki nga xamante ni yaakaar naa ne ñu bëri léegi dëgmal nañ ko waaye nan lañ koy toppee ak nan lañ koy royee muy maam Cheikh ibrahim Fall Babul Mouridina seigne maam Balla alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni uizuha bika wa zurriyataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخير قديمه خاتمة المجدد ملجئنا محمد ابن محمد ابن حبيب الله وعلى خدوتنا أبي المريدين الشيخ إبراهيم فال باب المريدين sëñ آه، أبلاي نو ما ngi lay زيار بباخ bu دي a baax di sant yàlla di julli junnit bi di jaarale nuyoo yi fi nga ko jaarale rek ndax ñooñu saa yu ñu jotee nuyoo rek lislaam yëpp jot seen nuyoo ndax lislaam rek lañ fi nekkal ki ci jiitu di sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàlla yàggal jëmmam ji ba lépp loo xam ne sumb na ko ngir lislaam bi fi maamam nekkoon di jëfal lislaam lépp lu mu ci sumb rek yàlla na ko àggale bu ko àggalee itam na sumbaat yeneen liggéey yoo xam ne ñu nag ñoom yëpp ñoo koy ànd di ko ñaanal nag euh, ki nga xam ni mooy njaboote taalibe yi ci njabootu Baye Fall yëpp di sëñ Cheikh Jëmb Fall te toog fii jotaayu Cheikh Ibra ñu ngi koy ñaanal moom itam lépp lu Cheikh amoon ci jotaayam ak sëñ Tuubaa yàlla na am lu ko kawe ndax yàlla mbir saa su ne day gën a jolli fi mu ne fayuk Cheikh Ibra dafa war a jolli ba ci ba ci xalifaam bi fi ne muy gën a yees di gën a kawe rek mhm. ba lépp loo xam ni tam jot nar na koo jot ci ndigal wala mu jot ko mhm. yàlla na ko jëf ba jëf ci lu kawe njort nit ñëpp di ko ñaanal nag fu julli nekk rek mhm. ak fu doomu aadama nekk rek suñu borom daf la defal la jàmm waaw di la ko ñaanal bu baax ak ñi ñuy seetaan ñëpp nag waa di ñaan rek li ñu fi waxtaan du dara lu dul lislaam rek ndax yàlla moom dane wa man yabtaxi xayra islaami diinan falan yuqbala minhu kon benn kàddu rek la yàlla am joxe ko yonent bu fi mës a ñëw it moom la la jox muy lislaam rek waaw kon kon ñu ngi delloo nuyoo tey xaar taaxiru laaj insha allah ndeysaan jërëjëf sëñ Mame Balla ci nuyoo bu tedd bu am solo boobu bu jotale boobu ku la dégg ni nga nuyoo xam ne pas-pas dëgg nga nuyoo ndax eh, yaakaar naa ne yàgg nañ laa bàyyi xel bu baax a baax a baax ci sa yëngatu jëmale ko ci sëriñ bi tey nag ñu fas yéene ànd ak yow waaye dañuy fas yéene waxtaane nag eh, ki nga xamante ni ndax eh, sëriñ Touba moom bi mu ñëwee dafa dafa dafa nekk njëriñ lu ànd ak lor waaye maam Serigne Fall nag wane loolu noonu ba nit ñëpp hmm. tey jii man cee jëriñu dafa waxoon ne ma damaa yoroon sama mbir yaakaar ne kenn xam ko moom Serigne Touba ma wax loolu. naka hmm. Ibra Fall fexe na ba xam ko. ma yaakaar ne ku ko xam doo xam noo ci fexe bu mos si maam Serigne Fall fexe bu mos si ma yaakaar ne ku ko mos dina neex ci yow ba doo ko wax mu lal ko ne ñëw leen. kon moom moo nekk ki nga xamante ni moo feeñal sëriñ bi waaye wane ñi nga xamante ni noonu lañ koy toppee waaye jariñu gi ci jariñ tamit moom la bala ñuy tàmbali rek mhm. ci sëriñ bi la ñuy njëkkee sëriñ bi nga xamante ni mooy wallaahu yansuru nii wal xalqu tatbaxu nii mhm. fil barri wal bahri saana fiin bi laa dara bi waaw yow fii ko uutee sax foofu mooy buntu bu mag bi ah, ndax sëriñ Touba pour nga xam Cheikh Ibra dëgg-dëgg sax mhm. faaw ñu wax la kan mooy sëriñ Touba tey di nga liggéeyal koo xam ni mhm. mooy wane sa jëmm tey tey bu ñu nee noonu diw de ndaw diw la mhm. mën nga cee xame diw moomu mhm. ci dayop diw moomu ñu la ne mooy ndaw ba koo ko am waaw ci dayop koo ko am ah kii de président ko yónni donte ku ñu yónni la rek waaye da ngay xam ni ku am daraja la rek ndax yónni yu ko président yónni kon moom doon gi mu doon taalibe sëñ Tuubaa ba foo tuddee sëriñ bi tudde ko ci wetam loolu dafay wone darajaam waaw loolu nag liggéey la Euh, Serigne Touba. mooy ruuxu lislaam mooy jëmmi lislaam. mooy jëmmi ndax dañ fondement bi yonent yàlla nuux aadamaa ko fondement. yàlla nuux ñëw teg birig Seydina Ibrahim yëkkati ko. yonent yàlla Eesa ak ñoom. jàpp ci ba tabax bi taxaw. bi lépp noppee peinture rek def lépp yonent bi sallallahu alayhi nag. Mhm. bi mu ñëwee mooy nit ki dugg ci tabax bi ngir sàmm tabax ba. kon dafa mel ni ñi ko fi jiitu woon ñëpp dañ doon liggéey kër gi rek waaye yonent bi nag bi mu tàmbalee ba ñëw ba yor caabi ji ba dëkk dëkk boobu muy dëkk nag mooy lislaam mooy lislaam waaw léegi nag sariatul islaamiya ak lislaam bokkul sariya dafay ñàkk woo xam ni dafay sàmm lislaam mais sariya du lislaam de da nit dañ koy jaawale dañ koy jaawale sariya dafay sàmm lislaam dafa ñëw pour ko léegi nag nit ñi danañ dem ba ñàkk woowu nga xam ni moom lañ ñàggal lislaam moom la ñuy gën a téye sax jëmmi lislaam fàtte ni lislaam a taxoon a sariya bi ñàkk la daal boo xamante ni euh, maanaam pour dara bañ ko ruur pour dara bañ ko yàlla lislaam la soxla Sëriñ Tuubaa nag leer googu la donn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa mel ni yàlla bi nga xam ni moom moom lépp bind lépp kenn dimbaliwu ko ci dara moom mooy xool li ko neex nag mu doxale ko noonu ay atte nag am na atte yi nag ñi ca war a jaar ñu ciy jaar mais yàlla mi moom yëf yi moom nag nu ko neex ginnaaw bi mu àttee nu ko neex lay doxalee. fa'aalun limaa yurid. fa'aalun limaa loolu nag nit ñi dafa baax ñu di ko bàyyi xel waaw dafa baax mhm. ñu di ko bàyyi xel mhm. ndax suñu borom bi mu bindee ñëpp dana ñii àjjana lañ jëm sama yoon mhm. ñii safaat ba lañ jëm sama yoon. moo tax ngay gis kuy def lu baax di def lu baax ba cet la wala iyaasu billaah mu def lu ko yóbbu safaan ba loolu ci coobare yàlla la rek ndax bu neexoon yàlla mu dimbali la joyante la nga dem aljana léegi nag Sëriñ Tuubaa jëmmi lislaam la bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallaahu la wa yoroon moom la taxawee bi mu ñëwee itam dinaa la ci wax lu leer naññ ci biir xasida yi li tax Sëriñ Tuubaa ne xaraamati xattu yet yi dañ ko war a xam xam nga lu baax lu nekk sëñ bi def na ko. kon kon lépp lu ñuy jàng rek. Mhm. dañ ko dañ cee war a taxaw taxawlu. taxawlu jàngal ko. jàngal ko ba xam nan lañ nan lañ koy mën a jëfandikoo loolu. dina solo loolu mooy yëf yi mhm. mooy gis nga lu ñu la wax. Mhm. da ngay taxaw teg liñ la wax. jàngat ko ba mu leer nañ. nga soog a jàll. waaw lu tax mu ne karaamati xattuyat yi. karaama boobu la ñuy waxtaanee. d' abord mu ñu xam ci kan mooy sëñ Tuubaa ñu jàll ci Seydou daf ne bay añ taqabbalal karim man li ma doon jaay sama borom jënd na ko nangu na ko bi sama nit lay sa yarim njëg li ma ci fay nee na du jeex fi mu ne buñ ko àdduna bi si buñ doon jël li sëñ Tuubaa fayee ko di ko tasaare sax du jeex bi sama nit lay sa yarim <laughs> wali wali du maa arum nee lu ma bëgg itam loo xam ne sàkku naa ko ci yàlla rek bëgg ko nee na ci loolu laa ko amee suñu borom jox na ma ko teg ci ilman àllu mi mooy xam-xam boo xam ni mhm. kenn xamalu la ko ku dul yàlla xamoo ko ci dara xam-xam bu moo tax boroom xam-xam yi mhm. lu ñu bari bari bari xam-xam nañu xam ni mhm. li fi sëñ Tuubaa xam-xam mënu koo àtte ndax xafisuma siira anit dafaatiri kon foofu nag la nit ñi war a gën a téye ci mbirum sëñ Tuubaa waaw kay léegi mu wax benn baat ne zimaamul wara asri zimaamul wara asri radallaahi fi yadi Sëñ Tuubaa dane nasug mbindeef yi ci sama jamono suñu borom teg na ko ci sama loxo léegi da ngay xool lan mooy loxo loxob Sëñ Tuubaa ak lan mooy zimaamul wara lan mooy nasug mbindeef yi lan mooy jamono Sëñ Tuubaa nga àtte ko ba noppi soog a xam li sëñ bi wax ndax ñu bëri dañ koy wax waxi waxi ku nit ku daanu rek tubaab bi nga xam ni tey mo nek bitim rew nan la nekke loxom nekke ci seigne touba fan bi leralé wama rumtuhu min malikin xaadi bil ani li seigne touba sàkku ci yalla yalla suñu borom dako xamal ne ko ñi duma len dimbali maanaam sama amuñu sama ndimbal ndax gëm yalla duma ko du nek ci ñom seigne touba ñoñu da lay na ber ba ci jinne yi nak ci nit ñi ak ñi nek ci jinne yi motax mu ne heureba كل من له سخاوة إلى سواي وليتلاوة داقل نغما كيف كنا نتخيل يا مكو داقل بنا بدي تي جيني من بي يتعلق الذين اسلموا من جن عصري دون من لم يسلم جيني ني تي نارا تخي صاح من لاكو جوخ ني تي نارا تخي نك ني نيو نك لا زمام ورا عصري لقد لا في jaje yorog nabba yorog xam naa teerug noonu tam nooru tamtiir ma ngoog ñooy ah, ah, léegi nag <laughs> moom ñi mu ñi ko soob mhm. ñi ko soob lay ñëw mooy wamaarum tuxoo wamaarum tuxoo mhm. min maalikin xaadabil an mhm. lépp lu mu sàkku rek ci yàlla ngir bëgg ku ko soob tey jii sëñ am di euh, sëñ Ablaay bu la sëñ Tuubaa soxlaa nga ñëw man bu ma soxlaa ma ñëw kum soxla nga ñëw ku ñëwagul daal jàpp ne danaa soxla jàpp ne sëñ bi boole mais moom lépp suñu borom teg na ko ci loxoom. tubaab bee keneen ak keneen di ci am. donc kon kooku mooy Serigne Touba. suñu boroom la fi nekkal moom lay liggéeyal. Mhm. te loolu yàllaa ko def kenn mënu ci dara. léegi nag ñu ñëw ci Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall. maam Cheikh Ibrahima foofu sax dinaa fi dinaa fi dugg. waaw ndax damaa bëgg waxtaan wi ñu ñu ci ñu koy waxtaanee. waaw ñu koy waxtaanee ndax euh, maam Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee. Mhm. dafa fekk Serigne bi. Eh, mel ni mel. fekk ko ci biir mbokkam. waaye maam Cheikh Ibra xàmmee sëriñ bi ci biir ndax eh, maam Mor Anta Sali jurul ku ndaw. waaye mu naan maa xàmmee ker ci eh, maa xàmmee ci guddi. kon loolu dafay wanewaat bu baax a baax maam Cheikh Ibra fa mu ànd ak fii. li mu wax sëñ Alsey Ndiaye. ne ko Alsey maa ngi ko dégg ci Baye Moussa Seck maa ngi koy ñaanal bu baax. Alsey mu ne ko mu ne ko Fall mu ne ko bi ma ñëwee jamono damaa fekk mbindeef yi mar lool ca yàlla. sëñ Bamba di am ndox. ndox mu teey mu neex a jëfandikoo mm-hmm. waaye dafa nekk ci suufu jaañ yi mm-hmm. nee na mën a mbindee yi ndox mi ci suufu jànj bi na leen ko duppi nee na ñu gàttal nee na ma jël samay jumtukaay ma jël samay jumtukaay ma ak jaañ ba man ak jaañ ba man ak jaañ ba mën ko duppee nee na ndox mu ne ba mu génn mm-hmm. nee na ma jël sama tànk bu ubbi ko buntu ba daan ne alsey képp ku jariñu ci sëñ Bàmba la jot a genn ca nga jariñu waye buntu boobu ma tek sama tank kon buntu boobu la ñuy waxtaane tey ah, ya-, yaa ngi woon ci serigne bi ci ci li legi nak ki nga xamanteni nak mo feñal feeñal ni wax na ne tuti kon mu ñew fekk serigne ba lëm gërëm ba kenn du mos ci baatinam lu ci bis bi ñi taxé sa bokku moy maam Cheikh Ibrahima Fall ah euh, serigne ablay dugg nga ci ci ci ci buntu boo xam ne mënees na ci leeral lu baree bari ndax ko xamni bi ngay ñew te nee nañ da doon wër serigne xam nga li ci gën a yéeme mooy suñu borom dina jëfandikoo benn xikma boo xam ni ñu bari duñ ko xam xikma bi mooy lan gis nga kiy bind scénario ñi scénariste yi ñiy bind film kiy bind film xam na kan mooy gañe guerre bu mujj ba xam na kan moo ciy bandi bi xam na ñan ñoo ciy ñàkk xam na ñan am ci film bi xam na ciy feebar xam ñi nga xam ne ñoo ciy baax xam ñi ciy bon kii bind film moom xam na koo ba pare kooku mooy yàlla. kooku mooy suñu waaw kooku mooy mooy lépp loo fi gis muy dem rek. <laughs> film ñi film ci moom lañ ko sàccee yàlla moom lépp. mais nag nit ñi nii nit ñi nag mooy ñiy gée film mooy nitu yàlla yi ñoom seen rôle mooy bi ñuy ñëw àdduna mm-hmm. ñëwuñu fi ci ngëlëmteef ñoom xam nañ ne ay acteur yu yàlla lañ mm-hmm. dafa am rôle yu ñu war a jouer yàlla mm-hmm. rôle boobu bu dee rôle ñàkk la danañ ko jouer ba ñëpp xam ni ñàkk kii ko mën a muñ la. duñ ci nëbbu dara. xam naa ne mbokk yi bu ñu jël seen big rek. <laughs> ndeysaan rôle boobu bu dee rôle mm-hmm. nit ku baax mm-hmm. kooku ak nit yëpp bu ñu ko doon tooñ day muñ rek donte am na ngàndaay bu ko neexoon bàyyi bañ mm-hmm. mais moo nangoo bokk ci film bi di nga koo xam ni feebar la ci joué rôle ko feebar tëdd feebar am na sax ñu ciy nangoo dee. dee ci film. loolu mooy te buy dee du ko metti du tit du raf ndax day xam ni lii muy def paré na ba paré comme misal lepp lu gis dafa am misal lepp lu gis dafa am misal ñoñ ñoy ñooy awliya awliya allah mooy wàlliwu yalla yi ñoñ motax suñu borom ne la khawfun alayhim wa laa hum yahzun ñoñ duñ tit li tax duñ tit nak moy dañu nekk ci kaaraange dañu xam ni li ñuy def yépp yalla lañ koy jëfël ñoom jëfuñu ndax ki tit bi ñëwee fofu lañ foofu lañ kii foofu lañ nit ñi nga xam ne nag moom ay nit kii lañ ay nit ordinaire lañ lañ waaw duñ mën a xam lu ci lu ñu def dañuy defee ne ñoom seen bopp koy def moo tax ñuy teggi pexe di la moo tax seen faale mbiram lal pexe amu ci moo xam ne ne yàlla lay jëfal bu ko leeree suñ ma menn xel la am da koy jëf dem ndax xam ne lii rek lii rek la mën a jëf xam nga léegi nag du tiit di def léegi nag ci biir film bi méttiwaayu film bi di nga gis ñuy critiquer diw yi ci ki nga xam ne moom sàcc la ci film bi léegi ko critiquer waaye diw mii moo sàcc nangam moo yàq fi am sax ñu koy ñu koy ñu koy wax wax ju ñaaw. di ko teg di di teg ci moom lu lu lu waaw te pourtant moom da koo joué rek defu ci dara. waaw yaa ngi wax lu yéeme nag. xam naa ne déggin tamit lu am solo la. lu am solo la gën a am solo mooy nga dé nga am déggin. Ah, yonent bi nee na sallallahu alayhi wa li gën ci li yàlla di jox ab jaam mooy dégg. dégg nit loo déggul mënoo cee jariñ mm-hmm. waaw loo déggul rek. doo ci jëriñu coow li nag mën naa bari. te sëñ Mame Balla ñëpp tolluwuñu dimension. waaw am na ci ñoo xamante ni. Mhm. Eh, dafa am fu ñuy déggee. dafa am noo xam ne mën nga ko waxee ñoom ñu déggee noonu sëriñ bi. waaw te foofu dafa mel nekk. voilà ni xam nga lii tey mooy pédagogie boo xamante ni nit ki di nga di nga a wax ak moom ci saa yi. Mhm. mu mu xam saa yi ba ngir baatin. ngir baatin waaye ci baatin ba jëm nag. ci baatin ba nag laa jëm. Mhm. loolu moo indi Cheikh Ibra léegi nag Cheikh Fall bi muy ñëw dañ ni ko waxtaan na ak Sëñ Tuubaa ba noppi suñu boroom ne leen jaam ñi dañoo gëlëm ndax dama leen a jox lislaam dama lay wax li li tax Seex Ibra ñëw ak Sëñ Tuubaa jaam ñi day lislaam laa leen joxoon ñoom ñu jël sariya ñege ko lislaam ñoom ñu jël sariya boobu topp ko topp ko topp ko ba fàttee lislaam moo waral nit ñi di julli te inna salaata tanha anil faxshaai wal munkar loolu lislaam la kon ñuy wone ne mooy nit ñi julliwuñ mooy du leen teree jëf luñ ñaaw du leen teree jëf luñ sib moo tax nit ki di woor weeri fan mhm. ba ca fan weer ba ca guddi ga weer wi feeñee mu ngay programmer soirée ban la war a dem mhm. kon kooku la muy koor jëriñu ko dara. te yooyu yëpp dafa am lu muy dindi ci. te loolu dafa amoon lu ko tax a jug yàlla soxlawul jëf ji fi la jëf ji di yóbbu la soxla moo tax mu ne kutiba alaykumu siyaam mhm. kama kutiba ala lazina min qablikum laallakum tattaqun tattaqun boobu nag taqwa boobu moom la koor di tegtale. mais nekkul jëmmi koor xiif ak mar la yàlla soxla waaye la lay koor di fa la koor di yóbbu nag fa la yàlla fa yàlla soxla waaw léegi nag loolu la suñu boroom wax ni sëriñ bi boo ñëwee nanga ma feeñalal loolu moo tax bi Seera Faal di ñëw mu mel ni ku koy wër rôle rôle boobu la joué rek waaye xam na kuy sëriñ bi mooy li nga njëkk wax rek mooy li ma njëkk a wax mu koy topp loolu moom jarul ma ciy jaaraat ndax ñëpp ñi nettali histoire yeeg Cheikh Moussa Ka xisse yëpp ñoom nee nañ ba Seera Fall ñëwee jaar na ci tey ba Dakar ak wax a wax a wax yooyu yëpp yooyu yëpp noonu la demee mhm. fa jaar mhm. dem ba egg ci Serigne Touba ne ko tànk yàlla laa doon topp subhanallah mhm. nga tànk laa doon topp mais sëñ bi ko xamul tànk yàlla xamee woo ko noo <laughs> koy toppee. tànk te tey ki koy waxit te it ak tamit maam Seera Fall. pas-pas bi mu àndal ba jàkkaarloo ku toll koy wax loolu. nga koy wax loolu. te ñam njëkk a jaar ay yu mag lañ de waaye dane garab bu la la may ker. ñooñ ñëpp ba seexale di liggéeyal yàlla ñooñ jógaguñ woon Cheikh ñëw na ay jamono ba tàyyi liggéeyal yàlla ah, yàlla ba mu jeex mu dem toogaat fa mu toog mission bu nekk doxal na ko yàlla suñu borom kon bu yow mi mujjee ñëw mu jug jamono fekk fi mbiram tey ci waxon na fi ci ay waxtaan yu bari ne jam bu nek amna ci jam yi sax yalla yo xamantene suñu borom da leena geureum da nan len liggey sangam la bëgg nga mako ci jamono at yam lay jox at yi bu lako joxe ba nopi la nga wara liggey paré gut at ya jeex da ngay wacc liggey manam sa yaram dootu ko parce que bo bu re at nga ko wara liggey nga dund téeméeri ak sa yaram màggat suñu borom day tuxal sa ruux yóbbu ko ci jaww ji bu fa yóbboo mhm. yaay tànn fu la neex nga wàcc fa maanaam da ngay ngir liggéey liggéeyal sëñ bi ngir liggéeyal yàlla eggali fa sa mission mhm. moo tax bi ñuy ñëw dañuy xam ak yi ñu fi war a def mhm. xam li ñu fi war a liggéey soo a ñëw dafa am lu leen koy wax nag yàlla mooy communiquer ak ñoom ñu leen wër bi nga war a wër sëñ Tuubaa jot na mhm. jot na sëkk ci ne kooku war naa feeñ ndax moom mbiram wàcc na moo taxoon mu koy xeeñcu mais nag yàlla ay mbiram mhm. dafa sérieux mhm. du la ko joxoñ carrément mais dana la yëgal nag nga jox ay jéego ndax yàlla bu bëggoon nga jël pee dana la boole ci course ba waaye day fexe ba nga raw rek mais faaw nga bokk ci course bi nag mais du la tëb rek di la sànni wala mu jël mbir ma jox la day fexe ba boole la ci course bi may la doole joo rawee rek te te te te ñoom modèle bi ñu teg bi ñu teg noonu ngir ñu royee ci royee ci ak taalibe ngir képp ko xamante ni yaa ngi wuti dara nga jaar ci yoon boobu. jaar ci yoon boobu ndax ndax ki jaaru ci yoon waaw waaw dafa ñoom am lu tegoon dañu rëdd yoon ngir jàngale ko <laughs> bu dee ab sëriñ dafa nu mu war a nu war a mel ni sëriñ Tuubaa waxee ci ci meneen baal xadim mm-hmm. sëñ bi si wax ne loolu la tontu maam Cheikh waaw maam Cheikh Ibrahima li ko waxee loolu moom lu ñu fi doon teg la ngir nit ñi bu ñu ñëwee roy ci jeex na dañ doon woon kuy wut yàlla mm-hmm. nan la war a def ak yan yoon la war a jaar comme moo tax parcours boobu faaw mu am. pour wane nit ñi ne leen kat fii ngeen war a jaar bu ngeen di yàlla rek. bi mu ñëwee ba ci sëñ Touba wax ko li mu koy wax lépp ñëpp defe naa dégg nañ ko waree ci wax nga ko léegi sëñ Bassirou nettali na ko te li gën a wér moom mooy ne ne sëñ Bassirou nee na sëñ Ibra Fall moom ma ko nettali. xakaa alayya muriduhul kabir. acheikh Ibrahima Fall. Mhm. wa huwa min firsaani niyatil wa cheikh yi. nee na man lii may wax sëñ Ibra Fall moom ko nettali boppam. mooy bi ma jógee sama kër di dem ci seen Tuubaa day dama ni ko li ma tax a jóg mooy damay wut koo xam ne dafa àgg ci borom bi ba noppi mën faa àggale koo xam ne dafa àgg ba noppi mën faa àggale léegi nag àgg nag mooy problème te àgg àgg nag mooy problème àggale yëpp gën koo jafe àggali nag moom kenn wax kenn fi mu ne nii àgg rek dafa jafe <laughs> waaw sëñ Fallou mu baax mi daana wax naa ne yoon wi dafa am ay yëf am ay yëfaat ay yëfaat <laughs> ok voilà fi mu ne nii àgg googu nag tey ñu bëree bëri mën ngaa laluk sëriñ toog waaye koy àggale yow sëriñ bu àggul lu muy àggale kenn du àggale kenn hmm? mhm. Seera Fall ne xàmmee naa nag ku àgg ndax baat boobu la jëfandikoo ki muy war waaw mooy dinaa fekk ci biir kooku leer boo xam ne dafay dàq lënd bi jàmm bi kon moom xàmmee na luy leer xàmmee luy lëndëm. kon leer leer lëndëm ak leeru beneen dafa am. dafa am xàmmee boobu tamit. xàmmee bi dafa am ndax boobu dafa fekk mu mokkal alxuraan moom xanaa xam ne bi muy bi muy bi muy jébbalu Sëñ Tuubaa daf koo jébbalaale mokkal alxuraan boobu. mais loolu tam war nañoo wax. nit ñi nan la ñuy jébbaloo. jébbalaale alxuraan. jébbalaale alxuraan waaw alxuraan boo koy jébbalee. du ci agne kamil bi ngay jël jox ko seigne bi ne ko dama jébbaloo alquran dedet lolu am bind la buñ bind tek ko fi yenen bind nga fi alquran moy alquran daf lay digal di téré wa waa digal mo doon digal dila ko téré mom ngay jébbal seigne bi muy ci alquran waaw mo nga ñew ci seigne bi doto nangote xam len doto nangu xam du seigne bi lu seigne bi. manam la nga la nga xamone yëpp dang koy ñew jébbalaale ko seigne bi ko seigne bi léegi alquran lam la daan digal. doo ci wax benn baat sa yoon new ci léegi sëñ bi mooy sa alxuraan bu la nee jëfal nga jëf bu la nee bàyyil alxuraan la ne bàyyil kon koy jaratul nga ciy wax baat moo tax maam Cheikh Ibrahima Fall ay ay gis nga li ngay wax nii sëñ euh, sëñ kii sëñ Maam Balla mhm. dafa leer naa ñi ñi seetaan xam nañ ko bu baax mhm. ndax dafa ne jàng naa alxuraan tafsir naa ay téere waaye suñ borom moo ne ma jamono jëne li may def ci kenn laa koy def <laughs> te wallaay lii <laughs> xista bi sax ko mais xam nga lii nga wax nii mm-hmm. ak li ma wax nga ni mu dëppoo mm-hmm. parce que noonu mooy noonu la ñuy defee alquran du tax suñu borom ne summa awrasna alkitaaba mm-hmm. allazina stafayna min ibadina dinaa loo téere bi ci jaam ñi ma neex sama jaam ñi nga xam ne maa leen tànn ci sama jaam ñi loo leen téere bi léegi Seydou Fall ñëw ne xàmmee naa ko nag ajib du min xaalixi nuuru xaqin leeru dëgg leeru dëgg mooy lan mooy koo xam ni foo ko fekk bu la waxee benn baat boo ko netteeg baatu yonent yi benn lay doon du wuteeg ñoom. du ñoom waaw. képp ku réer boo yegsee ci moom. Mhm. mooy boo sooboo ci leeram mooy boo ko joxee sa bopp. Mhm. nangoo dégg lam lay wax mu gind la yow. nga gind loo tilim tilim. loo tilim tilim mu soob la ci biiram nga set. Mhm. mu ne kooku lay war. voilà léegi nag mu des xàmmee gi mu ko xàmmee ci alxuraan. yàlla dafa wax jullit ñi dinaa leen génne ci lëndëm. yéeféer yi dinaa leen génn ci leer mhm. dinaa seytaane dina leen génn ci leer mhm. te moo tax alxuraan lu jafee dégg la <laughs> ayatul kursi maam Cheikh rek ko dégg moom dégg gi mu ko dégg moo tax nekk fi sax di ko wax daa ñëw rek jëfe ko moom daf ko doon pratiquer daal waaw moom wax ji moom jëf ji na gën a la gën a. jëf ji la gën a ñëw. maa ngi siyaar baax suñu soifaan mbar. ndeysaan ko ñaanal baax suñu borom. yokk yooyu damaa damaa bëgg gën a kiyaat moo tax may may dugal kii <laughs> xam naa moo maanaam xëy na am na ci poñ kii yoo xamante ni duñ fa duñ fa. duñ fa àgg waxtaan wi demee noonu daal dafa xat si Moussa Fall Mbar dama koy dégg mu naan. Mm-hmm. Eh, bu leen fekkati kuy wax dëgg. Mm-hmm. ngeen di ko ñee. bu fekkoon ne da daa yem foofu rek comme ni nit ñi def léegi nga wax benn wax ñu dagg ko. Mhm. dugal ko noonu kon mën nañ ne eh, wax ji naa nga waaye daf ne. Mhm. mooy wax da koy topp ba mu sës. waaw dafa wax ne ki tiim alxuraan. Mhm. lu mu paase dëgg la. ki tiim xadis. lu dëgg la ki tiim xasida yi sëñ Bàmba lu mu paase dëgg la. daal waaye loolu amul solo wax dëgg amul solo li gën a am solo mooy jëf dëgg. waaw ah, kay ak sax <laughs> ah. moom moo ñëw teg pratiquer. teg alxuraan nii nag dañ ko war a jëf daf war a jëfe am na ku mu a fekk muy jàng alxuraan di wax ne asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrun lakum wallahu yaxlamu wa antum laa taxlamun mu ni ko leeral ko ba noppi soo ko soo ko jàll kooku ne ko ah léeg-léeg suñu ngeen bëgg dara te fekk li ngeen bëgg baaxul ci yéen mu ne ko ak lan mu ne ko léeg ngeen bañ dara te fekk la ngeen di bañ moo gën ci yéen mu ne ko lu mu ci teg mu ne ko wallaahu yaxlamu yàlla moo xam wa antum laa tax yéen nag xamu leen <laughs> mu ne comme xamu leen nag lam ne ci sëñ Bàmba mi xam mu wax leen yàlla ngeen topp ko daa gis fam ko ko fam ko gis nga fam ko indiwaate <laughs> suñu borom dane allahu waliyul lazina amanu yuxrijuhum min azulumaati ila nuur man maay wàlliwu maa méngoo mbiru ñi nga xam ne ñoo gëm mhm. li gën a yéeme mooy yuxrijuhum min azulumaat dama leen di génne ci lëndëm kon ki gëm yàlla la wax de waxul yéefar de ki gëm yàlla am na la dëm gum ne xam nga lu bëri duñ ko seetlu dane allahu waliyul lazina amanu mhm. yàlla ñi gëm yàlla la wax de mhm. yuxrijuhum mina zulumaati yuxriju mhm. mooy koo xam ne ci la nekk nga génne ko ci nga ko kon am na ñoom lëndëm guñ ne yàlla nag mooy génne wàll yooyu ci lëndëm gi dinaa la wax ban lëndëm la mu ñu ni na kafaru ñu wedd yàlla awliyaahum taaxut ñoom seytaane taaxut mooy seen sëriñ yuxrijuunahu minan nuur ñoom tam am na leer gi ñu ne te yàlla dane ñi weddi ñi weddi la wax de wallazina kafaru gaa yi nga xam ne dañ maa weddi man awliyaahum seen wàlliyu seen seen seen sëriñ taaxut mooy seytaane waaw yuxrijunahum min an nuur ñooñu dañ leen di génne ci leer dañ leen génne ci leer ila zulumaat jëme leen ci lëndëm ñoom gan leer lañ ne nga leer la ko gëm yaa ngi ci ba léegi li maam Cheikh Ibrahima wax sëñ ne ko. waaw euh, leeru leer leer goo xam ne. waaw waaw moom ci leer googu laa nekk loolu waaw. xam nga da ne ko woon gis naa ci leer gi leerub dëgg. dafa am leerub dëgg nag. Mm-hmm. leerub dëgg kenn du ko fekk ci nit naan ko yuxrijuhum mm-hmm. mina zulumaat kooku génnagul génn na ci lëndëm. Mm-hmm. léegi nag mun naa la ko misaalal ci lëndëmi timis ak lëndëmi fajar. timis ci leer lay jóge dem di jëm ci tibis nekk lëndëm day gën a lëndëm rek mooy ah. yéeféer yi ñoom dañ leen génne ci leer leeru bëccëg bi yëpp dañuy jóge ci leer dañuy jóge ci leer dem ci lëndëm wallazina allahu waliyyu lazina amanu nag mhm. yuxrijunahum mina mina zulumaat mhm. ñoom ci guddi lañ leen fekk yàlla dafa fekk ñi gëm nekk ci ak guddi gu lëndëm xamuñu fi ñu jëm mhm. seerafaal tànk yooyu la doon taxawee yuxrijunahum mina zulumaat dañaa génne nit ñi ci lëndëm waaye ñi gëm la wax de waxul yéeféer yi de ila nuur jëm leen ci leeru fajar bëccëg bi muy gën a tàq leer gi gën a biir kooku mooy Cheikh Ibra Fall moo tax mu ne loolu laa fekk ci sëriñ bi ajibtu min xaalixi nuura xaqin tandafiu amaamahu zulumaatul xalqi wa tanjimi bihi ayatul xaq léeri dëgg mu ne kooku nag ku mel noonu nag boo demee di ko wër di ko wër nag ba gisoo ko ci jamono wër ba jamono jeex gisoo ko léegi nag léegi nañ waxtaan ci bàmmeel nag nga dem wëri bàmmeelam fu bàmmeelam ne ba tey bàyyiwul ba tey bàyyiwul xam nga lu mu doon jàngale foofu mooy nit jóge fi teewul muy dund maanaam da bëggoon wan ne sëñ bi ki may seet du dee rek du kuy faatu moo tax mu ne naa wër bàmmeelam bàmmeel lu muy jariñ nit boobu mu ngi jàngal nit ñi ne leen sëñ Tuubaa du kuy faatu donte fekkoon mu ko fi mooy kon yow mi fi sëñ Tuubaa nekkul tey mm-hmm. boo amee yéene bu sell war ngaa mën a liggéeyal sëñ bi mamaata sarmata te yàlla mu ne wala tax sa bann lazina qutilu fi sabilillahi amwaatan sëñ Tuubaa dafa génn àdduna ci yoonu yàlla mbiram yëpp yàlla la kulli saara lillaahi léppam suñu boroom la ko jox waaw allahu akbaru min qawli wa min amali nee na sama kàddu goo dégg ma wax ko màggaayu yàlla lay wane wa min amali jëf ju ma jëf man duma ci wane sama bopp màggaayu yàlla rek lay wane ci samay jëf wa min maqaali lépp loo dégg ma wax ko lépp loo dégg ma wax ko àqal yi sama xel naw tàmbalee ak wa mi maqaal yi ak lépp loo xam ne wax naa ko fa kulli saata lillahi sama lépp sax léegi mujj na di jëm ci yàlla léppam yàlla la waaw kon Cheikh Rafal bi mu ñëwee loolu la doon woon nit ñi moo tax mu ni ruuxul lislaam la taxawee foofu sax laa bëgg dugg waaw mën a ñoo kii ndax dama dégg nga tudd lislaam tudd sariya te yooyu yëpp dafa mel ne maam Cheikh Ibra am na lu mu ci wax ndax boo xoolee maam Cheikh Ibrahima bi mu nekkee ndar dañ ko daan wax naan ñun des fois lu ñu mooy sa diine ji diine joo xam ne amul woor amul julli diine ji daal xeeb nañ ko loolu maanaam bu ngeen bu ngeen ma xeebee yéen waa diine bu ngeen ma xeebee man diine xeeb ndax man lu ma xam wax diine lu ma jur jox diine lu ma am lu ma am jox diine mhm. kon maam Cheikh Fall mooy diine waaye dama wax naan l'islam bu doon ruu la mhm. bu doon bu doon jëmm la. Mhm. ruu gi mooy maam Cheikh. mooy maam Cheikh war <laughs> nga fee naa foofu laa toll. <laughs> ok ah? ok te gis nga jëmm lu mu rafet rafet rafet. Mhm. bu ci ruu génnee doon mu ñàkk solo. Mhm. ñii di attaay nii attaayekat yi. ak ñi defar kafe léeg nga gis ko attaay topp di topp di fuural di fuural dem ba fuural ba jeexal attaay ji. ba jeexal attaay ji ndax lépp day day day. waaw kii fer naa <laughs> ndax xumb xumb bi ci kaw rek. nit ñi lu xumb lañu bëgg rek. maanaam li ci kaw. dafay rafetal dafay tax nga àgg li ci biir mais ñun attaaya lañ soxla su naa furit bi attaaya la naan de. furit bi da koy rafetal. furit bi nag da koy rafetal da koy junjal mais sàmm attaaya ji. mooy tax nga màndi loolu mooy lislaam lañ moo tax nit bu doxee duñ ko duñ ko sant lislaam mhm. duñ duñ ko duñ duñ teg lislaam ci kawam duñ ko togg jëf mhm. laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa mhm. parce que attanu ko. attanu ko xel la tax xel. xel moo tax. xel moo tax yàlla la del julli xel moo tax yàlla del wor nit bu dofee amul xel l'islam togguñu ko ci dara wa julli bu dee mooy lislaam julli nit bu demone ba cëram yépp nit ñaar la kat cër yi nga yor ni yépp ak sa katan ak sa mën-mën ak sa xel wa bu nit tollu na fo xam dañuy wax ne ci l'islam bu feebaree ba mënta yëkëti cër est-ce que julli wacc na ko tax bu ngay xelam bu dee ci lislaam mu am xel mu feebar ba cëram yi mënatul yëngatu dañ ne ko julli wàccu la waaw kay dañ naan ko toogal boo mënul toog ñu la tëddal àgg na ba ci julli mhm. nga tëdd tëdd nii mhm. di junj ci sa xel rek junj ci sa xel mel ni ku yéene ci sa xel mhm. kon dafa mel ni kon différence bi dox ci diggante nit ki ak yàlla xel la ndax sëriñ bi bi ñu ko yóbboo ci euh, néegam boobu Ndakaaru situation bi tëjoon ni ni ñu ko tëjee woon noonu. Ah, foofu wax nañ ne na ci xel julli na ci xel bi kon yàlla nag foofu nag la nit ñi war a xamee ne euh, it tas ittisaal bi ndox ci diggante nit ak yàlla. ci mm-hmm. xelu nit la bàyyi xel yàlla. contrat booy bàyyee xel yàlla moo indi julli. Mm-hmm. ndax dof bi julli looguñ ko te am na doole am na kàttan mën naa daw fii ba Malika ñëwaat. kee kee amut kàttan mënta def dara waaye xelam a ngi fi ñu ne ko jullil kon loolu nag yow mii julli boo demee ba ñàkk ko sa sa biir kàttan ba joxatoo ko yàlla mhm. donte yaa ngi jullit yàlla soxla ko est nga baax li ma ñu bëri dañuy jël maam Cheikh Ibrahima ko dugal foo xam ne dañuy wax sax lislaam ba pare te ko ci tudd duñ ko tudd wala ñu wala wala wala dañ ko ciy génne sax dañ ko ciy génne dañoo xamul luy lislaam dañoo xamul luy lislaam. te maam Cheikh Ibrahima li mu jàngale mooy lislaam. may lislaam bi njëkk sax mooy. Eh, ndax war ma lu yooyu noonu yëpp ngay def lim lu am am am solo. Mm-hmm. dafa am loo xamante ni mooy moo koy moo koy moo koy moo koy moo koy laytaaye maanaam. moo koy téye ngir mu gën a mën a mën a kii muy war ma jeeg. Eh, xam naa sëñ Maam Balla loolu yow yaa ma ci dugal. mais feebar boobu la fi fekk xam nga maam Cheikh Fall. Mm-hmm. fekk mu feebaru julli. feebaru bàyyi xel yàlla la fi fekk. docteur nag bu ñu lay yónni ngay faj si. Do ñëw fekk ñi wër nga leen di fajj mhm. ngay fekk ñi amé jangoro nga fajj leen ñun amuñu problème sëgg ak si gi de ñàkkuñu katan guñu sëgg ñu ngi sëgg ak ñu ngi ci mais jokk ak suñu borom lañu am nit ñi bo leen di dimbali da nga leen di dimbali jokk ak seen borom ndax top nañ julli gi top koor yi dem ba nit day jóge ci jàkka ja legi jug jëf lo xamni da nga naan xana du ki mo demon ci jàkka ja te yoy yep nafiq do ko def nafiq da koy def léegi nag yonent bi salaahu salaam ndax dafa xëy rek indil nit ñi julli yonent bi woote na fukki at julli wàccu woote laa wax ba mu amee ñeent fukki at ba mu am juróom fukki at la julli wàcc léegi fukki at yooyu ñi ci faatu ñëpp fu ñu jëm ñu mën a dem fu ñu fu ñu àtte koor gàddaay na ba dem Madinatul Munawwara ñaari at koor soog a wàcc يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام يا الذين امنوا بوب كو مدينه لا واتي هم لغي لان موتاخ جولي جارين لن نيوم صحابه جولي لان موتاخ مو جارين صحابه بان ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر واي نك ولا ذكر الله اكبر خمو ني بري دنجكاي فيري ها خمو لول لومي تك لو ناس خمو ني بري بنجكاي فيري دغنا غا يو بري بري دما دما لين دي دغ نك ني كوي كورسي نان ديدت جولي ذكر لا julli nangam la waaye léegi bu kon julli zikar la rek kon yàlla lu lu muy communiqué di yokk communication di ci wax wala zikrullahi akbar na yàlla dañ ko dàq wax xam nga ñoom ñu ci bëree dañuy jël dañuy jël téere bi yàlla bi mhm. di ko di ko di ko di ko di ko maanaam di ko di ko déggee seen seen ni leen ni leen ni leen fi ñu toll seen tolluwaay te moom li mu wax moom mhm. wax na ko ba pare wax na ko léegi yow li ci boo fi nekkee nag di yow yaa yow yaa ay sonn rek tey alxuraan yàlla nee na borom xel yi laay waxal mhm. ñu waxee ba noppi dana lii téere bii borom xel yi mhm. laay waxal borom kon bu doon yàlla kenn du ko jàngal communication moom bu doon julli zikkar la rek kon doon muy tudd zikkar inna salaata la wax salaata julli mhm. tan xaa anil faxsa moom dina tere mhm. nit ki di jëf lu ñaaw ak lu sib waaw kon lu ci wala zikrullahi akbar lu mu ci uti kon kañ kon kañ nag xam nga loolu mooy zikkar mën naa yóbbaale julli waaye julli mën ta yóbbaale zikkar xam nga lu tax ñëpp xam nañ ne moom tur yi moom. waaw daa saxoon ci moom. waaw daa saxoon ci moom ndax. Mhm. bis boo demee ci waxtaanu bu suñ Modou Abdoulaye bi mu def. Mhm. Euh, bi Serigne Touba toog na ba mu yàgg mu ne bëri jug nekkoon Ibra Fall ñu julli di ñu julli ji te ñëw. Mhm. Cheikh Ibrahima daal di tudd yàlla. nee na bi mu tudd yàlla dafa woo sëñ sëñ yaaram mbay ba mu ñëw mu ne ko demal ma ci kër ga nga ne maam Ibrahima kan. moo yoroon foofu koor bi. dana ko lu fa nekk na ko indi ñu jox ko sëñ Bamba ne tudduma yàlla ngir ngir loolu waaye dama ko doon nooyee. <laughs> ngay seet loolu rek. wala sikulaay akbar dama. waaw dama doon dugg foofu rek. waaw léegi am na solo yi ngay dugg dafa am solo dafa may dafay tax nit ñi gën a xam. ndax day dëppoo wax ji. xam nga zikkar mën naa yóbbaale julli. Mhm. waaye julli mënta yóbbaale zikkar. est-ce que mën ngaa julli fii ba mu jeex te tuddoo baatu zikkar yi. aw sàkket kese. Hmm? ساكر كاسي مونتا تخاو مونتا تخاو واي او خيرو كاسي او خير كاسي مونتا تخاو ليغي جولي نكو وصل اي وقتو ان الصلاه تن... آه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يالا داني جولي دي تي كي گم دا فا ام اي وقتو يو خامني تي لنج كو ورا ديف ني اوتال كوكو تك كو ذكر نك يين وقتو لنج كاي ديف ما <laughs> ذكر دا مام وقتو ونه رك فيم لي ني ني جولنا تاكوسان بنوبي ci fiq ci ci ngiru imam malik wat dañ ko dañ ko aramal fimne ni ni amu nii amuma julli fek waxtu wu jotut waaw feeg bu timis jotut ma julli timis sañu ma nafile waye bu dee zikkar nak bu ma neexee du ma tudd yàlla léegi mhm. hmm? kon mo gëna a ndax am Balla dinañ wax mbokk yi liñ jublu ci waxtaan wi comme ni ndax Cheikh Ibra mhm. dafa nekk koo xamante yaakaar ne fi koy tek ak fam nek bokku bokku waaw dañ ko dañ koy jël mhm. moo tax ñu bëree bëree bëri loru nañ ci moom. ñu bari bëri bëri. loru nañ ci moom. soo rawatina ñi nga xamante ni tamit dañuy dañuy wax lislaam mhm. ndax lislaam mënoo ko te tuddoo maam Cheikh Ibra. waaw ndax maam Cheikh Ibra moo ne suñ borom nee na mhm. da ngay lijjanti maqaama mam mam mam toll. Mhm. ba naan suñ borom nee na ma. Ah. loolu ngay lijjanti ba pare doo ko lijjanti ay gile yooyu. moom loolu moo gën. ok waaw te it maam Cheikh Ibra xeebut xeebut dara dara dara bu dee julli gii nii julli. Hmm. waxul dara ci julli. ci maanaam di ko xanaa kay. mooy falu ko ñi di ko kii. moom moom laa bëggoon wax léegi. Hmm. man la ñu bëri dañoo defe ne mandar mandar gam Baye fal hmm. mooy toog bañ a julli wala toog bañ a wóor. ñu bëri dañoo defe ne. loolu la loolu la Baye Fall bu ñu tëb rek loolu nga war a mandarga woo pour ñu xam ko mais ñàkk julli ñàkk woor du mandarga Baye Fall de am na ñoo xam ne julli yu ñu wooruñu te duñ Baye Fall. ñu ngi ci lislaam gii julli wuñu woor wuñu sarax wuñu te ay jullit lañ leen di woowee sax kenn du leen wax dara waaye tuuma Cheikh Fall dafa bokkoon ci yi mu waajaay la woon bi muy ñëw tuuma ndax dafa bokk gis nga kuñ jul tuumaal doo dem fenn yonente bu mu sa ñëw yaa xasratan ala al ibadi maa yaatihim min rasulin illa kaanu bihi yastahziun loolu la alquran wax nee na nit ñi seen perte nga ñoom maa woo naa seen perte nga amul benn yónent bu ma sa ñëw ndaw ma yónnee leen ko mu indi leen lu baax te te te dii nga ko yéej ñu ko kon loolu koy loolu lu baax la seerafaal bu ñëwoon jëf li muy jëf kenn waxu ci dara kon dañ naan indiwul lu bees indiwul indiwul lu lu yees yeesalul dara te waxtaanu gébb wa wax na ne bunt yi ma indi woon bëri na waaye benn bunt bi rek laa ci ubbi coow li bëri li bëri ma tëj bunt yi ci des kon buñ ko lan la war benn bunt bii rek la indi nit ñi commencé ko kii kon <laughs> nit ñi ñoo jëm ñoo xamul fi ñu jëm rek japp l'islam te xamuñu lu l'islam rek hmm? Cheikh Fall la indi ci julli bo jangé jesu Murid jesu Murid lim ci wax ci julli man de jàng naa ay téré fiqh yu jàngale julli mais tawhid bam fa indi ci wal julli musuma ko gis ci téré bokku na ci lim fa wax moy da ngay dem bané allahu akbar taxaw di julli néna na julli de waye sa xol baa ngi ci mbiru aduna yi <laughs> te la ah ba nga selmal hmm. ba nga selmal te te Seyra li muy li muy doon jëfit alxuraan la doon jëf de. Mhm. amul lenn lu jëf te mënoo koo fekk ci alxuraan amul. xanaa ma ne suratu jumaa sax bi woote julli. Mhm. mooy doxu ni Seyra Fall. xam nga yàlla dana yaa ayyuha lazina amanu. Mhm. izaa nuudiya li salaati. min yawmil jumaa. fashaw ila zikrillahi wa zarul bay' daan ne zaalikum xayrun lakum in kuntum taalamun fa izaa qudiyati salaatu. fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah waaye nag wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun ñi gëm la yàlla woo te yàlla nag gis nga waxam kàddoom dafa mat di dégg léeg yàlla dina dina ne dina ne ñi gëm gaa yi ne jullit ñi déedéet dafa am muslimoona alquran am muminuuna yàlla bu ne innamal muminuuna ixwatun waxul jullit ñëpp ay mbokk lañ ñi gëm la wax ñi gëm ñun dañuy maasale rek jullit ñëpp ay mbokk ba pare boo jógee sa mbokkum jullit mooy jug fii léegi liggéey la wala nga bokk ak nit jàkk di julli mu liggéey la ci jàkk ji ba dootoo julli si sax am na ci ñu bëri ñum dal hmm? wala ngeen bokk loo xam ne birum yàlla la hmm. mu la ciy xeex kooku du kooku est-ce que est-ce que gëm na bu dee jullit la d'accord ndax dañ ne kuy julli rek dañ lay boole ci jullit ñi waaye ñi gëm nag la yàlla wax ñooy mbokk mais nit dana jàng téere bi ba pare hmm. te du te du ko dégg du ko dégg alxuraan na ci raw ndax fi ne waxewul sax ne yàlla wax ndax li yàlla wax moom kenn xamu ko. waaw waaye liñ ci jublu rek mooy. ñuy bàyyi xel yenn wax yi ñu jël di ko askanale Cheikh Ibrahima. mais li nga wax nii yàlla sax moo xajal moo ñu may place fu ñu mën a xamee ci téere bi ci Ali Imran moo ne minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab fa ama allazina fi qulubihim zayqun fa yattabiuna ma tashabaha minhu ibtigaa alfitnati wa ibtigaa tawili wa maa yaalamu tawiluhu illa allah alxuraan dafa am ay atte ak ay loi ak loo xamante ne suñu borom ko jagoo am ay ay taawil tamit ay firiyin ay déggiin waaye yàlla nee na man rek maa xam loo ci jublu waaye bu yemoon foofu kon ñu ñëpp duñ ci sañ a wax waaye dana war raasixuuna fil ilm am na ñoo xam ne nag ñoom dañuy xuus xam-xam ñoom ci lañ bokk <laughs> léegi boo xuusul ci xam-xam xuusoo ci lu dul yam fi bind bi arab bi yam rek lu ci ba leen bëri doo ko mën a xam moo tax suñu borom ne innamal na ñi gëm lay wax ñi gëm ngëm bu nekkul ci yow imaan dëgg dëgg dëgg dëgg doo mbokkoo kenn da ngay soxor iñaan lu nekk mën naa dal ci yow te ngay julli ji di ñëw imaan nekkul ci yow léegi nag yaay lisina amunoo boobu nag amunoo boobu la yàlla woowaat ba tey ca suratul jumaa ne isa nuudee li yi xam nga boobu ñuy julli la waaye xam nga noo koy déggee jullig yàlla julli gu sax sax isa nuudee li yi mooy sëriñ bu mat sëriñ bu wootee fasaw ila yi dem leen ngeen wuyu ko te tudd yàlla fàttaliku ci yàlla ndax sëriñ boobu mooy sa imaam de. xam nga imaam mooy kan. imaam mooy boroom jamono. imaam dëgg dëgg dëgg dëgg bu lay jiite du la woon ginnaaw. da ngeen di jàkkaarloo muqaabala tunaalu bil muqaabalati da dangeen def muqaabala jàkkaarloo mu lay wax ngay wax. mu lay yéege ci yàlla di la woon yoon wi. ji la defar lépp. xam nga Cheikh Ibrahima daa dégg. <laughs> dafa dégg. ndax dégg. waaw moo tax sëñ Tuubaa ne li ko yëm mooy. waaw Ibra li muy def. Hmm. Euh, maanaam mos sa gis kuñ koy defal waaye xamul fu koy jàngee. alxuraan nag ko tegtal. <laughs> kon maanaam maam Cheikh Ibrahima moo tax dama lu bëree bëri. Hmm. dama naan li alxuraan indi woon. Hmm. ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Euh, noonu la Cheikh Ibrahima ñëwee. indi ko ci jamono Sëñ Tuubaa. noonu la def ndax euh, dama koy wax lu bëri dama naan. xamal Alxuraan ak Cheikh Ibra Fall dañoo bokk feeñ ci jaam ñi gisal ba yónneen ba nekkee ca mbokkam ñëwal mm-hmm. moroom lañ ko defoon boobu sujjoon bi xewul bu toogee ci kaw ñu toog moom ci kaw te lu mu wax ñuy weddee ko xul eh. mu ne ba bur yàlla wàccee ci ñoom xujraat mm-hmm. ci la ñuy doog a xam ne li ñuy defoon xujuraat mu ne lawoon loola nag mooy tey jii ci Cheikh Bamba bi ba Cheikh Ibra Fall feeñu gun mbiram yaatu mais dinañ ñëw sax ci xujuraat léegi <laughs> xujuraat la li Cheikh Ibra moo firi xujuraat fi moo ñu ko suratul xujuraat firi waaye ma jeexal ci suratu jumaa bi ma doon wax <laughs> mooy imam boobu mu wax fasaxaw ila zikrillah mhm. lu mu ci teg wa zarul bay'a mhm. mooy njaay ak bi ñuy def mhm. su boobaa nañ ko bàyyi moo tax yàlla ne ñooñ ñooy góor ñi ak rijaalum laa tulhiihim tijaaratun wala bayhun an zikrillah nee na góor ji dëgg dëgg dëgg dëgg ñooy góor ñi rijaalullah yi mooy ñi nga xam ne duñ topp commerce bi di ko topp di ko topp ba woon ginnaaw yàlla mooy nit dafa war a jox léppam yàlla. dafa war kooku bu ne allah maam Cheikh Fall ba mu ne allahu akbar wane màggaayu yàlla ba tey waxul asalaamaaleykum sëlmalu. waaw asalaamaaleykum bi nekk ci julli du nuyoo. du nuyoo bi ñuy nuyoo ñun. ndax bu doon nuyoo bi ñuy nuyoo nun la kon nga dégg ñun la waaleykum salaam bu imaam ne asalaamaaleykum ñun la waaleykum salaam dafa am ñuy ñaanal jàmm moo tax Serigne Fall bi wax naan fu ñuy fay julli ku fa dem dama fekk. waaw ñooñu dañoo leen dañoo yooyoo ñu ñaanal leen jàmm fañ ne. loolu kay am naa ci fii ne ndax loolu sama maam la ko waxoon. Mhm. Babacar mu ne ko Fall. Mhm. mu ne ko jàpp julli jàpp ak julli ak koor mhm. lempam yàlla la. war na bépp bopp yàlla sàkk waaye man Ibra Fall mi dama ca ajut sama dara ne ko sama lépp dama ko aj ci liggéey sëñ Bam Babacar mu ne ko ko fa man Ibra Fall loolu bi ma gis jeex na waaye fa ñuy fayee liggéey sëñ Bam ku ma fa fay doo fay taxaa ñun ñëpp bëgg a fayee man la ñëpp la ñuy fayee te te kiy waxtaan wi nag day defee ne day defee ne moom mm-hmm. dañoo jóg pour pour tere julli mm-hmm. wala pour araamal julli mm-hmm. wala ne Baye Fall yi. maam Cheikh Ibra maam Cheikh mooy li ma doon wax léegi. waaw julli ñoom ñooy xeeb maam Cheikh Ibra. waaw waaye maam Cheikh Ibra bis bu nekk. Mm-hmm. maam Cheikh Ibra mosoo dégg mu woyofal sax. déedéet ndax dafa xam dafa xam ñun ñun. mais lay lay julli di maye. Mm-hmm. ak lay koor di maye wax naa la ko léegi. Mm-hmm. lay koor di maye lay julli di maye. moom moo moom moo ci moom lay jóge. foofu sax la ñuy ñëwee. waaw ñëw ci koor. waaw dinañ ñëw ci koor ñëw ci asaka. dinañ ñëw ci asaka ci ndax ndax ndax ndax asaka moom lu daje. waaw waaye maam Cheikh bu daan yóbbu addiya daanaka daan mélange mélange boobu ajaka <laughs> sax ñi koy génne defe naa ne dajale daje yor ay million dajale ko ba mu mat at hmm. nit ñi xiif ñi ne fi ñu ñu nga ne toog ba at jeex ngay soog gi loolu kuy am yërmande dëgg du ko def waaw hmm? ndax nee na pangom tan yàlla kenn du sédd ak moom di ko koo xam ne daal moo dégg diine daal dafa dégg diine léegi julli googu ma lay wax hmm. mu ne wasarul bayan bayan mooy lan mooy commerce mooy Baay Faal yi ñoo def loolu ma wax la ko bi mu ne wa zarul bayha bàyyi bàyyi yi njënd ak njaay dëgg dëgg dëgg mooy Seex Ibra Faal bi muy ñëw ci Sëñ Tuubaa lépp ko soxla woon valeur u Seex Ibra Faal kenn xamul nu mu toll waaw ci xam-xam ci nguur di nga dégg xistakat yi daan wax mais léeg-léeg dañuy wax wax boo xam ni xistakat yi dañ koy nettali te duñ ko mën a leeral nit ñi bu ko defee léeg-léeg nit ñi wedd ko fekk yooyu dëgg la de fekk dëgg la dañ ko dul mën a leeral waaye xam nga dañoo toll jamono boo xam ne dañ naan léegi xëy na loolu sax moo war a am lépp lu nit di wax naa naa am ko teg. am suuf dalil am dalil. waaye nag tamit am na ci yoo xamante da lay na tamit lu wér lu wér la rek dëgg la. da ngay dégg mais nag boo amee dalil nag faram fàcce mooy gën mooy gën waaw. xam nga da nga daan dégg ñu naan maam Cheikh Fall bi muy wër sëñ Touba. Mhm. rey na gaynde mhm. rey jaan mhm. dégg nga rey ñay. gars yi naan maam Cheikh Fall déedéet def mais loolu. ben bu ci ne dafa am lu muy tekki gaynde mam Cheikh Fall lay ne gaynde tekkiwul dafa dem fek gaynde bu teud mu diko ray waye gaynde moy bour bour mom ko warono nek bour la. <laughs> degg na jafe degg ala yalla ñu yalla defal degg degg degg am solo motax baat yi ngay degg yëpp muy 10 yow mi koy degg ci lay 10 ci say nopp waye ki koy wax mom xam na ko bu baax wolof langu yalla la waxu yalla batu wolof bari na lu ci mag ñi di wax te fekk kaddu gu yalla la yalla ci fegal ay secret wolof dañ cee neub secret maarifa ci la ne dañ ko cee neub ci bir mag ñi nak mom lañ daan libal léebu di ko wax di ci lak wolof te wolof bi sax du xam li ngay wax lan la te fekk da nga ciy wax seen soxla da nga ci jangale yalla te mam Cheikh da na wax olof olof bo xamanteni da naka sax da nga nan olof deug deug deug deug am deug Cheikh xam nga lu ko may wolof yalla lay wax dafa am wala fi yalla ak wala fi business ah ay sëpp sëw sëpp sëw nan na ban ba màndi ku ñew ma man man naan ay belle suma ma belle suma su oh, lolu lolu wala fi yalla la mm-hmm. lolu lañuy wowe wala fi moy wala fu bu wen aduna raxul mm-hmm. wolof woo xamni bako nit ki di wax liggéeyal yalla ba ag ci yalla motax mu koy wax xam nga xam nga belle suma ma mam mm-hmm. Cheikh dafa ma tok bu mu yag gebu bay Cheikh ñang gebu na doom ndax xam ngeen luy buuse ñu mm-hmm. ne ko buuse de xanaa faal ci gerte lay am ma ne ah ndokk ba ngeen xamee ne ci gerte la am waaye buuse de amut fii sama yoonu maag sëñ Bamba ndax dañoo tànn dañoo tànn ci biir ba pare bellee waat ràññewaat moo tax lépp mooy li ngay wax la man kay dama laa nar a bàyyi rek nga dem waaw nga nga dem léegi nag su fekkul lu jëful woon lu tax muy bellee ràññee est dana mën a wax baat olof boobu kan moo koy wax ku dul ki ko jëf moo koy dafa am loo xam ne ki ko jëf rek ko mën a wax mm-hmm. ndax moom daa ñëw belle mhm. ba noppi ràññee moo tax mu am kàddu gi sinon kàddu googu da doon réer de amul ci wolof ak yooyu duñ ko xam ndax jëfam la moo ko moom fi ma tolloon léegi li ma doon wax sax. yaa yaa ngi woon kay ci gaynde ci gaynde waaw. nguur la rey mooy moom nguur la waroon a doon mu jël nguur gi teg fële caay mhm. ko yàlla mhm. ñay xam nga ñay mooy rëy mooy nit ku rëy ku diis waaw. koo dégg ci baatu wolof ñu naan diw day ñay la wala fexe na baray ñay sa waay jàmbaar nga def fexe nga baray ñay gis bu ñu la ko waxee xamal ne nit ku woyof nga ndax ñay moo ëpp ci rabu àll yi kon bu ñu ko adressé nit rek rëy lañ ci jublu waaye jubluwuñ ci rëy yaram ndax nit du duy ngàndee noonu li tax nag foofu nag ngay déggee li tax Sëriñ Faal bi mu ñëwee ñu naan dafa déjjati siraat xam nga dañ koy wax tey dinaa souligner baat wala fi bëri yi ñu daan dégg rek te duñ ci xam dara ñu ut ci leeral. ah beneen yoon moom beneen yoon dina ñëw spécial ci baatu baatu. baatu yooyu rek baatu see rek yooyu rek boo ko toppoon mu jeex. xam nga dañ ne sirafal am na ñu wax ne déjj ci na siraat la wax ci yoonu murit dëgg la. waaw sirafal déjj na siraat xam nga nu ko déjjatee siraat fii lañ koy jéggee àdduna kenn du ñëg ba yomal xëyaam ñu tegal la pont ngay tegi siraat. kuy dund da ko jéggi boo ko jéggiwul fii jéggi ko fële te nga ko jéggi fii nag seen faal xam nga luy jéggi jéggi jéggil nit ñi si daal hmm. mooy fexe ba def si ñoom taalibe rëy dindi dindi rëy gi waaw dindi rëy sëñ am euh, sëñ Ablaye hmm. am na ñoo xam ne boo leen joxoon këll neen yalwaal leen hmm. dugg ci géej gi faatu moo di ko gën maanaam teg siraat jéggi ci moo gën a yomb ci ñoom doon ab taalibe di sukk maanaam ni ma ko mën a waxee mooy ni ngay toroxloo ni ngay toroxloo manaam comme euh, maam Cheikh Ibrahima ba mu demee euh, dëkk bu ñuy wax Njukki. Mhm. Njukki. Euh, Mbaar Joor Siga ku ñuy wax Mbaar Joor Siga. Mbaar Joor Siga waaw Mbaar Joor dafa mos ñëw ci sëñ Tuubaa benn bis. Mhm. ne ko man de Mbàkke àjjana ju amul jaamu yàlla laa bëgg. am àjjana ju ah, ah. mhm. di doxantu ba ak si Njukki. toog ci ron garab ga. mag ñi ñëw ne ko am na jaay yàlla ju ne xee mu ne mbaa sama waa jaay yónnee. bi mu ñëwee la nuy maam Cheikh Ibrahima maam Cheikh Ibrahima ne ko noo tudd mu ne ko Mbaar Mbaar Diop Siga. Mhm. mu ne ko tudd naa la Ibrahima ndax Mbaar bu ngalawee naaw bu tawee seen. incha allah daal koy jox këll. Mhm. li ngay wax fii laa ñëw de. Uh-huh. waaw jox ko mbaam yàlwaan loo ko ci dëkk bi te mooy te mooy jiite dëkk ba. waaw mbaar di wër ma jàll ba mu ngoon jot. seetal loolu mu ñëw dalal maam Cheikh Ibrahima ci néeg préparé bi teew du sàngara pour berdeel ko maam Cheikh Ibrahima. mam Cheikh Ibra baye ban genn mu jël bitéru sàngara yoy gas bu xol mu soti jël bisaab bu bu mu préparé won mam maam Cheikh Ibra sotti ko ci bitéel yi dañ cey nan lu bari ñom té duñ màndi mbar né sañu dékk né ci dëkk ba té moy borom dëkk ba bis ni ki tay bu fi kenn nan na sàngara li fu mu am lañ ko fay jëndé wala sëñ Moussa kan digënté diggante ak Jamatin ha hmm, ah, lolo fa xewon waaw lolo fa xewon <laughs> da daan dajé nan ne butéel <laughs> waaw dama moy moy moy nit faaw mu toroxloo ndax mam Cheikh Ibra fam mu mhm. ndax Lat Joor Damel ci Lat Joor la sant Jóob waaw waaye doomi Mbuur gi mu nekkoon mhm. wala doo waroon a faru Damel ñoom si seen seen jamono yi mu wàcc loolu lépp nag topp sëriñ bi kon mooy li nga wax naan siraat mooy mooy tey ji am na boo leen naruloo ne yoruloo ab këll tey waaw tey dugg dugg dugg ci kii dugg ci géej leen ko gënal mhm. parce que rëy googu nekk ci yéen foofu nag mhm. la nit di jéggee siraat moo tax dégg-dégg alxuraan ñi koy jàng yàlla dafa jël la nit ñi waroon mujje moom la jëkke da ne bu ëllëgee di ngeen jéggi siraat bu ëllëgee dina am ñu tàbbi jahannama fala ba mu déggee jahannama seerafal dafa jël benn tànkam teg ku biir sawara jël benn tànkam teg ku biir àjjana di jël ci biir safara di fa jële ay nit di yóbbu àjjana loolu fii lañ ko mu noo ko fële de tànk boobu fële ëllëg ku fa teg sa tànk lakk safara boo bëggee xam fu mu ne da ngay dem fa ñuy jëf li leen di yóbbu safara nekk nga teg fa sa tànk yaa ngi ko teg fii safara. ngi wax yaa ngi wax yaa ngi misaal lu yéeme nag. lu yéeme loo xamante ni nit ko mën a bàyyi xel ci dafa am solo dafay dafay dafay daf lay dimbali ci boo waroon a jàng lu gudd di ci sonn ñu misaalal la ko ba nga xam ko ci sa xel waaw ndax boo bëggee dévier naa nar dem safara doo ko bàyyi ba mu dugg safara nga koy dévier mm-hmm. foofu kenn doo ko mën. dangay fexe ba jëf ja yóbbu sawara nga teg ci sa tànk bu ko def loolu mooy murit saadix dafay jël tànkam ndijooram teg ko aljana mooy moom fa ñuy def ñu baax ñëw du kenn du ko fa ëppale te boo tourné fa ñuy defee ñaawtee fa day mel ni ko fa ne waaye utu fa dara da leen ciy génne moo tax jaxasoo see dafa ñeme woon jaxasoo ndax ñun ñu bon ni dañ leen doon sànni rek te defe naa ne kuy defar di defar ku baax defaroo kenn mhm. bu dee ku baax rek ngay ngay ngay xajoon mhm. kon loo liggéeyal yàlla. te mission bi mission bi fi bi fi indi yonent yeeg. Mhm. sëriñ beeg ñëpp ñu ñu ñu jaar ci beneen yoon a tax. ñu jaar ci yoon ndax euh, kuy gindi kuréel. kuy gindi kuréel doo jaar ci yoon. doo jaar maanaam boo boo boo jaar ci yoon doo gis kuréel. mooy docteur bi ma la wax ne la moom la faj si. Ah, waaw kay kuy faj si nag ñi gën a nekk urgence ngay seet. Hmm, waaw ñi nekk urgence ngay seet tey jii boo amoon tool. Hmm, hmm. am picc yuy ñëw di lekk ci tool bi. am yooyu ñuy teg ci tool yooyu mel ni nit dañ koy defal kii am na nu ñu ko tuddee dañ koy teg ci tool yi rek pour picc yi bu ñu ko gisee. Ah, daal di ne nit a fa ne. xeetu xeetu xeetu kii la. Euh, dama fàtte tur bi dañ koy defar nii ba mu jekk rek ñu teg ma ngoog solal ko yére ah. loolu boo koy teg ci tool fu yàq ba gën a bëree picc yi gën a bëree nga koy teg nga koy teg mhm. moo tax yonent yi yàlla yónni yëpp mhm. fa yàq nga gën a bëree leen yónni mooy fa ëpp yàq ngir ñu mën a tegaat leen ci yoon bi tegaat leen ci yoon waaw ñu leen di beddi waaw seytaane bërëb yu sell yi lay wër mhm. wàlliwu yàlla yi bërëb yu xajam yi la ñuy wër ndax seytaane moom it noppi naak ñu bon ba noppi amatul si ñoom liggéey ñu ngi koy liggéey li mu bëgg lu mu leen di doyee say Sëñ Tuubaa toog na ci njaareem dégg am tëgg daal na ñooñu wuy ji de taxul muy woote ñun ñii ko tax di wax ndax nit bu fekke da nga nek ci lu baax seytaane kooku la ligéyam ne ci bërëb yu sel yi fa lay wër di xol na la leen di jaxassé juma yek ñu naan setané du fa dugg naan kañ setané day dugg juma dugg ci biir sàppe ti bi tax mu né bo leen di sàppe dé leen sësale sàppe ndax setané day dugg ci biir setané day dugg ci juma moy moy li nuru nurulu moy li koy nuru nurulu te té du lool nga xamné légui euh manam euh, ngir ngir comme ça jëmbu jëmbu jëmbu ci biir tolu dugg jë jëm mooy jë. fi mu ne jëm <laughs> waaw boo ko xoolee da ngay da ngay boo xaw boo xamul dara dara dara dara ci dugub. da nga naan da nga naan jëm dugub. da nga naan jëm benn lañ. <laughs> waaye maam Cheikh Ibrahima tas yaakaar borom tool ba ak fa yóbbu. seetal loolu waaw da ko wax ci gébb fa waxtaan bu am solo. waaw ma ngoog waaw waaw ci. léegi kon kon li ñu soxla mooy ak defaru defaru nit ñi dañoo desee defaru. ak defare ak génnee naafiq ci xolub jaam ndax l'islam sariya dafay ñàkk naafiq mhm. loolu nag boo ko waxee lu bëri na da ngay tuumaal sariya xam nga nu mu koy ñage buñ la gisee ngay julli rek dañ naan kii julli la boole ci seen bopp ndekete yow boo demee ab yéeféer nga sax lu yàqu ci lislaam ñoo ñoo ko yàq tey te yàlla jam na leen boo demee ci suratu nisaa suñu borom de innal munafiqina yu xaadimuna allah da ne naafiq yi ñoom dañu jéem a war yàlla lu tax fa iza qaamu ila salaati kamu ku gis nga julli ni intéressé wu len de nee na yang koy xamé ci seenu tayel ak seenu fiñak ñàkk ak seenu ñàkk ciawar ci li ñuy def fay feñ sax ci sen julli lutax mu ne yuraa una naasa dafa melni dañu bëgg nit ñi gis leen boole leen ci julli ñi ñu julli gi katulee hmm? man nan laa gën a réy kaan la kaala gu rëy la ñuy sol mbaxana mu rëy wax na sax nee na nee na nee na nee na alxuraan alxuraan ñëpp la dénoncé nee boo gisee seen jëmm yi tox jibu tox jibu ko ajsaamahum nee na seen seen seen jëmm yi da dalay tiital sax yow nee na bu ñu waxee sax seen kàddu da ngay defee ne kii nee na kàddu seen kàddu dañ koy xumbal sax ngir napp nit ñi mooy ñi nga xam ne bu ñu toogoon tey di waat nit ñi sax daf leen nàngam te fa ñuy woo nit ñi ñoom newuñu ko sax. di xupp nit ñi dafa ne ñom ñoo ne ci bax lu baax saxaaba yi daawuñ solo non saxaaba yi comme ñun ni ñi solo ni saxaaba yi daawuñ ko solo saxaaba yi solo bàyyi fa lañ daan solo dañ daan dañ daan takk si digg leen gisee xam ni ñi dañoo paré pour dem pour liggéeyal yalla waye kan. fi nak pour ñu xam ni nitu yalla nga fa nguur kala gu weex tal mur ko ci sa bop booy dox di dox ndànk booy booy booy wax sax luñ wax nga ne ñu ñu luñ wax ñu luñ wax nga junj ko xaw ko lu wax nga ne xaraam <laughs> ah, bàyyi sa sikkim nag bàyyi sikkim ba mel ni dafa ne sikkim moom moom mooy sikkim bu doon bu doon tax a jàpp kon bëy yi ñoo jiite yi mais ñoo gën a néew doole ci rawaan yi kon sikkim du dara kon daal mbir mi nekkul foofu nekkul foofu yëpp nekkul ci ci ci ay son léegi nag loolu maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. yooyu la doon faj si feebar yooyu la doon faj si xaamu ko sallee yuraa'uuna naasa mhm. waaye lu mu ci teg lañ moo leen yóbbu loolu wala yazkuruuna allaha illa qalilan naa fekk koo gis mu koy doon du tudd yàlla lu bëri <laughs> waxee yàlla sax tiit koy tiital du ko bëgg dégg te moom lay mbubboo te moom yàlla lay mbubboo boo ko waxee yàlla boo tuddee yàlla ci kanam fi mu ne bàyyi faal yii ñu bëri ñu tax xajuñoo lu leen mhm. lañ dul turu yàlla lañ dul bëgg dégg seytaane lañ dëkkal ci seen biir xol yi mhm. moo tax ab bàyyi faal buy tudd tudd yàlla bu wér daf leen di déranger gisoow ñi nga xam ni dañ leen di faj ñu yor rab bu ñuy jàng alxuraan ni ñuy bañee mooy ñi nga xam ni tey ñi ne Baay Faal yi ne ci koñ bi di di di zikkar defuñu dara dañuy tudd yàlla de mais tudd yàlla gu wér gi moo xajoowul ak ku dëkk ak seytaane ci saasi daf lay déranger doo moo tax doo fa gis du bëri ay nit. da koy lakk daal da koy lakk gis nga jàng yoo dem sax jàng yoo dem dañuy def li ñuy def waxtaankat yi waxtaan maire ba ñëw ku nekk politicien yi ba jeexal. ñooñu seytaane bu ñu tak sikkar sa buy tàmbalee parce que dañoo xam ne bu sikkar ci tàmbalee ña seytaane indi woon dañuy dem te seytaane ñi mu indi woon dañ cee am benn cër boo xam ne cëru koom la. te nit ki seytaane dina ko topp di ko conditionné di ko di ko di ko orienté ci ci di ko diriger ba pare mu doon doomu aadama te fekk seytaane la àndal bu am na ñoo xam dañ naan onze billahi mina seytaane rajim te fekk ñoom ci boppam ñooy seytaane sax ñoom mais seytaane yu taxaw lañ ba noppi di muslu ci seytaane xam nga maam Cheikh da wax ne da ma wax ne ah doom nan ngeen di muslu ci seytaane hmm. ngeen ko onze billahi mina seytaane rajim mu ne taxut taxut taxut ngeen mucc ci de. dina ko faal ku ci bëgg mucc nooy def mu ne da ngay demee fam ba fam sanc ba maanaam ba fam gente gental nga dëkk fa mooy mooy màng xam nga mhm. pël bu màngee dootu dootu fa ñëwaat gis nga euh, gis gis nga weñ mhm. weñ weñ mi nga dëngee ca mbànjaxaan nga ma ngoog ku ko bëgg jubanti nooy def loolu maam Cheikh wax de nee na mhm. da ngay dem ba fa mu dëngee nga jubanti ko jeex na te mooy dafa seytaane boo xoolee iblis. Mhm. ndigal ci la dawee. ci la ci lañ ci lañ. maam Cheikh moom bi mu ñëwee xoolee lim sàmm. ndigal la mooy li nga wax neen moom dafa dégg moom ñëw ci. comme fii ñenn ñi jaaree te tey jii la damay wax naan waar bi tey la gën a bëri. Mhm. tey la nit ñi gën a gën a dëng. parce est-ce que mënuñu mën a changer méthode méthode bi ñuy waaree. Mhm. ak nit ñi waaree ak nit ñi ak nit ñi xuppee. delluwaat leen ci yërmande suñu borom ji ndax rahmaan ak rahim la. mais nit ñi rahmaan gu rahim rahmaan gu mais loolu la yàlla moo ëpp yërmande ñëpp dëgg la nit ki waroo koo wax lu neex te waxu ko lu naqari mhm. waroo ko wax lu naqari te ko lu neex waaye nag képp koo xam ne da nga pour dimbali doomu aadama mhm. faaw am noo ko noo waxtaanee ak moom ndax dina amul forcé mais loolu la xam nga xam nga aljana boobu nag la maam Cheikh Ibra indi xam nga aljana bii ñuy wax mhm. yàlla daf ko leeral nit ñi wax leen bu ko neexoon noppi rek mais daf ko wax nit ñi ngir ñu am xemmemteef ci jaamu ko loolu yërmande la yërmande yàlla laa yasmaxuuna fiha lëgwan wala taasiman illa qilan salaaman salaaman jàmm rek nga fay dégg waaw isa raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira saa yu ñu ko wanee na nga gis fa nguur gu nguur gu rëy rëy léegi lu tax yàlla di la xemeem loo aljana dafa bëgg nga xiir ci jàmm yàlla ba mën a mucc rek waaye aljana jooju góor yàlla sax du moom lay sàkku am na ñoo xam ni séexlu nañ ko ñoom yàlla lañuy wut te gis yàlla moo dàq. gis yàlla dàq aljana dëkk ngërëmal yàlla dàq aljana. ngërëmal yàlla moo dàq aljana yàlla boo koy booy topp boo koy topp ni nga am aljana boo koy liggéeyal nag ngërëmam ngay am xam nga dafa am ku ñu jéggal ak ku ñu yërëm ak ku ñu gërëm bokku ñu taxawaay ci saay rek ci nii rek ci nii dara bu xewoon koo yërëm yow te ñun ñëpp man yàlla lañ ne moo tax mu bind ñu. mais yow mii rek bëggoo ko la yërëm fi mu ne nii <laughs> bëgg ne saa nit ñi ku ñu yërëm rek lañ bëgg ah parce que na ngay mel bañ yërëm la la dul neex mooy ci tuumuranke gu mitti ngay ne mhm. wala ñu gis kuñ toj këram mhm. wala koo xam ne dafa jaaxle ñu ne kii de sëñ bi am naa ci moom yërmande mhm. yërmande googu ak yërmande yàlla bokkul yàlla day yërëm nit xañ ko alal te fekk daf koo yërëm ndax daa xam ni boo ko bàyyeek alal ji mu jëf ci lu ko yóbbu sawara te yërëm mu nangu alal ji mu ñàkk nit ñi yërëm ko nag fekk yàlla leen ko gën a yërëm ndax la ko yàlla di fégal ba nangu alalam jooju yàlla rek ko xam moo tax ma suñu borom nit balaa ngaa mën a nangu dogalu yàlla sax day fekk nga xam sa borom boo xamul yàlla da koy diingat sax da ngay da ngay da ngay da ngay weddi ay dogal te ñàkk xam yàlla dina waral ngay ngay ngay ngay ngay sikki sàkka wala ngay diingat koo xam ne nitu yàlla la nitu yàlla la ku ci mel ne maam Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mhm. ñëpp xam ne nitu yàlla ndax lii mu lii mu def rek mhm. lii mu def rek daanaka ba xam nga lan mu gën a lan moo gën a jafe. Mhm. muy defar defar. ak ah, mooy li ma doon wax sànq. waaw waaw mooy mooy waaw. waaye bi ñu nekk nii te fii mu yàqu-yàqu baa ngi fii de gis nga fi nga taxaw nii fii rek mënoon naa nekk waxtaan bi ba mu jeex yàqu-yàqu bi yëpp fii la ne yàqu-yàqu yàqu yëpp mu ngi fii ndax ndax ba pare te nit ñi ñoom lu ñaaw rek la ñuy seetlu du ñu seetlu lu baax mu xoolal Baye li teraanga yi ñuy def ci li ñuy te li ñuy terelee ñuy woor ku woor ba ngoon nii la Baye jullikat yi bàyyi jàkk yu bëri bari jumaa yu bëri bàyyi faalee ko tabax mhm. sonn ci ba dee mhm. waaye ngërëm mais sóoral bi ci Touba lu tax ñu tuddee ko Lamp Fall <laughs> loolu la ah dafa am lu muy jàngale mais ñoom dañuy seet ñoo xam ni topp ñu kenn jëmuñu fenn ñu natt ci ñoom baay Fall te gis nga maam Cheikh Fall Mbawar dama koy dégg muy wax mhm. peñab goro boo ubbi fekk ci sankar sankare yow nag yaay xool bi nga ci yéey ak bi ngay sànni <laughs> <laughs> waaw Baye Fall boo koy natt mhm. da ngay dem ca Baye Fall fi mu ne l'islam rek boo ko doon natt boo ñëwoon fekk benn mandat buy taxawaalu nga ne ko jullit nga mu ne waaw nga natt ci moom l'islam est-ce que dana mat mhm. fi boo demee li ne ci murit gi moo ne ci tiijaan gi ne ci fépp ne ci laay nit foo dem rek am na fa ñoo xam ne dañuy nuroo sànq mu mënta ñàkk ci mënta ñàkk ci sànq <laughs> yow nag boo demee ba yëy xoolal fa guro ga nga yem yëy fa tànn te bañ a jël ñoo xamante ni xëy na doxewu doxewun doxeenu Cheikh Ibra waaw nga jël ko jël ko comme euh, dëppale ko ak Cheikh Ibra wëlbati ko ba tax ngay xas wala ngay wax ngay xas naka sudul noonu ah. ndax maam Cheikh Ibra moom fu leer la nekkoon fu leer la ne moom moom moom li mu liggéey ndax sëñ Tuubaa du mas laa ak kenn ci sariya déedéet ndax sëñ Tuubaa ni mel julli na ba julli ci géej gi mani la léegi nag maam Cheikh Ibra mii nga xamante ni nag dafa nekk ak sëñ bi ba jamono bii nii nga xamante li mu fi indi tey hmm? nga xamante ni kam nekkaloon moom yaa ngi dégg bàyyi ko noonu ba bi yow nga ñëw waaw Eh, sëñ Cheikh Ndigal bu mas nga wax ne bu dee bitim réew ñu laaj ko lan mooy ak Baye Fall daan na ngeen ko xamewoon rek lu ci teg na ngeen ko na ngeen xamewoon ak Baye na ngeen ko xamewoon waaw na dëgg de te suñu borom wax ne alquran ne fama man qama fama man taqa wa asra al xayaata dunia fa non fama man taqa nu ko waxate sax fa ama man khafa maqam rabbi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa kep ku ragal yalla jox yalla geudum deug deug deug deug sa bakkan bi nga not ko ba lepp luy banex nga tere ko ko aljana ci dekk iya, iya, way te yoy yep ngay gis mam Cheikh da koy def daf koy def yoy moo koy def kat yi suñu borom wax ara ayta lazi yu kasim bi diin hmm. yàlla ya nee xanaa gisoo yonent bi ki nga xam ne moo weddi diine ñi weddi diine ñu ne ko ñoom dafa zalika lëzi mooy gaa yi nga xam tudd fa ku julli tudd fa ku jullikat yi la wax mhm. doxul yatim am na koo xam ne day julli foo ko fekk bu jirim ñëwee ci moom mu dàq ko gëdd ko wala yaxuddu ala taamil miskin mhm. te du ñaax kenn si mhm. muy ku muy leel am miskin Baay Faal seen mbir yëpp lan la Hmm? mooy fexe ba foo fekk ku xiif hmm. nga dimbali ko hmm. benn ci boobu ñam yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo ko joxee ab jullit bu xiif moo gën nga tabax junni jàkk ndax ñoom ñooy jàkkay yàlla yi balaa jàkkaar fees nit nit a wér corona bii nii ba mu fi xewee bay soog a tiital nit ñi tëjuñu jàkka yi ah. kon kon bu doon jàkk yi rek ñooy jaamu yàlla kon fu kon fu yàlla kuy jaamu yàlla <laughs> du nit ñi <laughs> yàlla nit ñi laa am jàkk ja jak deug deug sax deug deug deug deug jak moy serigne bu mat serigne ndax ci ngom ngay jakke suñu borom moy jak ji jak yalla ci mom lay ne ci mom lay ne ndax jak ñu ko tudde neegum yalla nga ni ko jak ne jak yalla ci mom jak ji nga xamni mom lañu tabaxé béton tabaxé ko ciment yalla du ci fanaan yalla ci jak ji mu tabaxal bopam lay fanaan feer yi feer yam fa def mooy yaxi doomu aadama yax yi moom mooy feer yi ciment ba mooy ndawal yi mu ko wërale miir ba mu ko raaxee mooy der bi peinture bi mooy couleur bi mu ko jox lampe yam fay def mooy bët yi ngay xoole moo tax booy julli da ngay xool hmm? sonorisation ba koy wax mooy làmmiñ bi allahu akbar yi ah haut-parleur yi mooy nopp yi koy dégg lépp jàkka jooju nag néeg ba nekk ca xool ba hmm. xol ba fa la suñu borom di foofu mooy toroxlu toog maam Cheikh Ibrahima ni ñu dañuy dañuy def ci néegu yàlla bi mu ne xanaa lu ngeen tabax tudde ko néegu yàlla. waaw kay lu ngeen tabax tudde ko néegu waaw xolub doomu aadama lay dëkk. Mm-hmm. xolub doomu aadama lay dëkk. yàlla foofu lay fanaan. waaye du fanaan ci tabax. am jàmm ko jege. déggin bu déggin bu yéeme de. Hmm? sëñ Mame Balla. dafa mel ni waxtu waa ngi tàngoo de. te xam naa ne ñu ngi dugg ci yoo xam ne. <laughs> léegi koor gi la ñu waxoon boobu. laaluñu ko sax laaluñu ko. ok <laughs> dégg nga ma waxtaan daa ko ci kawe ba. ah laal. doo waaye nag xam naa ne li nekkul benn jotaay. waaw dëgg allah rabi tey poñ fu ñu ci dugg rek leeral nga ko leeral boo xam ne. ñi ñuy seetaan bëgg nañ ci lool. Hmm. ndax wax li ci gën a am solo mooy hmm. dégg tey ni ngay waxee tey képp koo xamante ni tey jii ndax fii la ñu war a delloo si waat nii. waaw am na ci koo xam ne maam Cheikh dafa ko mos a fekk muy firi alxuraan. Mhm. di waar nit ki toog ak moom di ko waa waajaa nga koy xool rek nee na mm-hmm. mu naan ko bis penc ba mu naa kii rek na kii rek kii nangami na ko doom wax ko li gën a jege <laughs> ndeysaan waaw wax ko jëmmam ji mu yëm ci yàlla mu yëg ci yàlla rek waaw nekko ba mu nekko hmm. nekk lu mu hmm. rek a kii a gaaw moo dañuy kii hmm, lu ci lu ci lu ci dëng rek na nga xam ne dañoo fekk li wéradi rek ñu bëgg ko wéral voilà maanaam kenn ku ci nekk ca la nga nekk bu fekkee lu kii la na nga ci góorgóorlu bu baax a baax nga xamante ni nekk ci leneen na ko bàyyi waaye jubluwuñ ci ngir xam ñun dañoo xam wala ngir dañoo man wala dañoo def déedéet dañ ciy jublu ngir soññante ndax kenn ku ci nekk tey jii war nga mën a dolliwaat sa morom pas-pas mm-hmm, mm-hmm. yéen ñi war ngeen dañoo mën a dolliwaat pas-pas comme suñu maam Balla mi toog soññee ci jublu mm-hmm. xam ne nit ñi fi ñu leen war a defaree dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg tarbiyee leen waxtaan ak ñoom dalal leen delloowaat leen ci yërmaande suñu borom ji mooy ci maam si Ibrahima maanaam waaw foofu la si sëñ Mame Balla xam naa ne kàddu yi nga xamante ni moom ngay tàggoo mbokk yi seetaan xam naa doyaluñ moom waaye fi may fi may tàggoo rek mooy ñu fexee dëkk Touba dëkk Touba rek dëkk Touba Touba nag ku fa dëkk da xam quartier yi fa nekk yëpp quartier yooyu yëpp nag ci sa jëmm nga koy dëkkee mhm. moo tax foo nekk Touba lay doon da ngay dem Daaru Salaam. Mhm. da ngay ba may nit ñi jàmm rek am jàmm. loolu boo ko nekkee rek dëkk nga Daaru Salaam. dem Daarul Xafoor. Mhm. fexe ba yàlla jéggal la ngay jéggale. Mhm. nga dëkk fa foofu suñu ci waa loolu la doon wax nee na ngeen dëkk ci dëkkuwaay yooyu ku fi jékki ñu jéggal la mooy da ngaa mel melokaan woowu. Hmm? Daarul Muxti fa la xéewali di joxe. yàlla boo tax sëñ Fall ba mu fa fanaan ne ataytu ilal miqtaay fi daarihi l muxti li yuskiya shakwa minni al qabdu fii la ñuy maye aji aji kii maye fii la dëkk daaru eh, muxti <laughs> eh? kuy jàmbat mhm. nee na boo ñëwee ñu fajal la sag jàmbat mhm. muy daaru mus muxti mhm. hmm? tudd Tuubaa yëpp jannatul maxwa yëpp boo ci dégg rek dëkkuwaayu doomu aadama la mooy nit ki melokaan boobu la war a mel bi ci des mooy taalibe yi nañu xam ni ak taalibe du du mer duy mer du ko ko tooñ mu mer ab taalibe du ko ko tooñ mu fayu ab taalibe day jéggale day yërme du fayantoo Baay Faal dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni lu jamono metti metti metti metti metti du jàmbat tey doyloo rek melooy suñu borom ak jëfi suñu borom ak li yàlla àtte ci moom Baay Faal dëgg dëgg dëgg du xeex sax ngir kuy dée da ko war a yërëm ndax moom xéewal gi mu jot moom ba am ko ba ba gëm kii amagul xéewal googu kon da ko war a yërëm waaye ak moom Baay Faal dëgg dëgg dëgg dëgg dafa war a dimbali julit ni top julit bu tumuranke mu dimbali la loolu moy taxawayam dé Baay fal deug deug deug do am ben yité bu dul yalla moy mourid sadiq moy mooy fal mourid bu mag bi lañ ko tuddé moy Cheikh Fall moy kilifa ñep yalla nañ yalla tass ci barkeem yalla nañ doon ay mourid sadiq doon Baay fal pir te sax ci té sax ci ligéel Sëñ touba ba faaw bañ ko genn kon ma ngi nuyu ñep di <laughs> nuyu euh, sëñ di nuyu sëñ Amdi moom moo ma daan indi fii ma koy ziar ba fii a baax jàmbaar la lool ku mën a kennal daal yow daal doxalal rek <laughs> di nuyu Cheikh Massour sama mag ku baax borom xam-xam bu mag Cheikh Massour mhm. yàlla na ko yàlla may wér gudd fan di nuyu alfiyodaatul xadimiya yëpp mhm. di leen ziar bu baax a baax Euh, Abdou Lahad Faye mhm. ñoom ñëpp ñi fa nekk ñëpp rek maa ngi leen di ziar ak secrétaire général bi seen jiil Abdou Khadir rek maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax ni waxtaan bi nag mhm. nañ ko dégloo xel rek te bañ ko dégloo xool ndax borom xam-xam moom <laughs> du borom xam-xam mu doon waxtaan waaye ab ab ab daanukat rek <laughs> waaw bu ko defee ni ñu ko déggee rek ñi am xam-xam nañ ko dégg dégg bu rafet rek soññe la ma ko waaw nekkul waaraate waaye soññe la kon asalaamaaleykum jërëjëf sëñ kàddu yu am solo ñu ngi lay daan baax nag di la gërëm ci jàppandal gi mm-hmm. ak tamit yéene ji nga amoon ci jotaay bi ndax feeñ na ci nag bu baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. ku la dégg ni ngay waxee xam ne yéene dëgg-dëgg nga ciy waxee ak xam nag ndax euh, li ngay wax leen lu ci nekk am na foo koy jëlee tamit lu wér la ñu ngeen xam ko bu baax a baax euh, beneen bi ci des mooy lépp lu ci dëng rek nañ xam ne euh, doomu aadama rek ñoo doon aadama ñoo wax waaye lépp lu ci jub rek nañ ko jël def ko kàddu soññee mm-hmm. waaye ñu sant ko yàlla bu baax a baax a baax a baax ñi ngi santaat ñëpp di gërëm mbooleem ku ñu doon topp ci réew mi ak ci réew mm-hmm. képp kuy topp Touba Allemagne TV rek ñu ngi leen di nuyuwaat baax di la siyaar la jox sa wàccuwaay di siyaar mbokki Touba Allemagne ñëpp sëñ Maxtaar ñu ngi koy siyaar sëñ Sidi ak sëñ Lamine mi nga xamante ni moo ne ci wàllu visite bi ak sëñ Abo ak mbooleem ñi nga xamante ni ñooy ñooñ doon topp euh, seen émission Ëttu Maam Serigne tey lii la leen indiloon euh, talaate ji ngeen di ko ànd ak sëñ Maam Balla ci waxtaan wu am solo. Mm-hmm. kon ñu jox jox leen dig daje ci beneen talaata ak yeneen invité incha allahu rabbi wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. la ilaha illallah. la ilaha salaatini nga bokk ci ñi njëkk jot suñuy vidéo saa ne aboneel ci Touba Allemagne TV HD te fàtte bés cloche de notification bi xaaloo li yarkan li abwaabi salaatini jawaay sa tuxni kulla maa in